préfet du département de Fatick signifié ko ko mu ne moom c'est pas à son niveau que ça s'est fait nañu def réclamation moom dina envoyé ak qui de droit ñu def suñu réclamation def ampliation gouverneur ministre de l'intérieur bu ñu paree fii incha allah damay dem Dakar si samay avocat pour ñu dem cour d'appel pour que ce vote soit annulé à Fatick parce que ça se passe pas dans les règles du jeu y a pas de démocratie y rien du tout c'est de la fraude jaay la te duñ ko nangu. di voter gis ne population bi génn na bu baax pare nañ pour voter ñu ngi leen di ñaan ñu continuer def vote bi ci jàmm ndaxte ñun waa Kaolack rek la bu élection yi passé yi tamit ñun waa Kaolack ñoo fi des kon jàmm bu ñu xamoon jàmm boobu rek la ñuy continuer di wax ñëpp ñu saxal ko fii ku munti gañe tamit Kaolack rek moo gañe moo tax ñu ngi sant di gërëm ñëpp nuyuwaat leen ak euh, fu ngeen mën a nekk euh, ndax nag suba ba léegi xam ngeen ko télévision Futur Média mi ngi au cœur des élections locales euh, ñu ngi wër Sénégal fan la scrutin bi toll jamono yi ndax nag xam ngeen ko 18 heures normalement ak officiellement la ñu war a tëj les bureaux de vote ndax am na yenn dysfonctionnement yoo xamante ni ñi ngi xalaat ni l'administration territorial dina jël dogal ngir nag bu ko defee ñu yokk. Euh, waxtu wi ndax am na ñoo xam ne dañu yéex a tàmbali lu si mën a am benn dogal jibagul ci wàllu wi en dañuy defaat tour ndax li des bureau yi tëj bareetul benn waxtu rek moo ci des wax naa leen ko euh, dañuy dem nag daal di nuyu ki nga xamante ni moom mooy Jo Marone maa ngi lay nuyu Jo Binta Diallo est-ce que may dégg. Jo maa ngi lay nuyu waaye yaa ngi parcel fan la mbir toll heure bi euh, Binta yaa ngi may dégg. Binta dafa mel ni dégg mel ni dégg bu ñu ngi lay dégg Jo waxal. allo Binta. Jo Maron. Jo Binta. allo Binta Diallo. casque bi ngay xaw a dindi tuuti xëy na casque bi baaxul. casque bi kay bu bees sax la Binta. <laughs> Jo Marone alors maa ngi lay nuyu yaa ngi may dégg bu baax. ana Binta ana Binta tuuti dinañ ñëw ci euh, Jo Marone euh, ni ma ko waxee euh, su suba ak léegi nit ñaa ngi voté normalement même su fekkente ne am na ay dysfonctionnement ça et la lu ci mën a am mooy ne daal vote bi mi ngi déroulé wu un peu partout dans le Sénégal ou même dans le Sénégal ci nga ci fi nga xamante ni fa la vote bi war a amee dañuy dawaat parcelle Jo Marone. ñi nga xam ne mooy bureau yu bari commencé wuñu woon donc moo tax après ci ngoon si nag da gis nit ñi dañuy. Pabeeku ñoom ñëpp jamono ji ñoo ngi fii ci ndaw ñi nag ñoo ci uh, gën a bari ma fàttali nag ci uh, école 14 fii lu toll ci ñaar fukki biro ak ña ak uh, benn ñoo fi nekk lu war a ci lu weesu cax ci 12000 électeurs ñoo ci moom la wax ne moom ñu war a voté fii donc mu mel ni kon am na ay enjeu Binta mais il faut ñu rappeler nag fii jafe-jafe yi quand même woon na fi ci mag si suba si ndax ci bureau yi nga xamante ne jot nañ fa jaar laata mbir mi commencé bo ay 11 yooyu. bureau yi ñii dañu manqué woon ay encre ay ñi leen ñu aussi dañu manqué woon li nga xamante moom mooy ay PV ak yooyu yëpp mu nekk loo xam ne ñu bëri dañ ko ñaawlu woon fii maintenant comme yéex na commencé est ce que dinañu prolongé ba après dix huit heures bi nit ñi di euh, continuer di woote ndax dinañ ko def waaw wala des pour le moment ñu ci wax euh, lu bari waaye euh, lu mu ba moytuwul foofu la ñu jëm fii parce que comme nit ñi dañu yéex a commencé donc jamono ji li fi nekk ci ay nit ci cour bi je pense que fii ba dix neuf heures sax du tax mu pare parce que wat wat aussi il faut ñu fàttali ko taxul mu gaaw noonu comme ni niñ ko yaakaare woon Binta Diallo na euh, ñu ngi lay gërëm bu baax euh, wax nga ko li nekk foofu ci ay doomu aadama bari na euh, ba tax na lu ñu mën def rek wala lu préfet mën a def rek xëj na moom mooy permettre ñi nga xamante ni déjà ñi ngi ci bureau bureau de vote bi te je pense que loolu la code électoral bi wax que ne ñi nga xamante ne ñi ngi rang di bëgg a bu fekkente ne heure bi jot na sax te voté guñu dañ leen di may préfet mun na jël arrêté daal di fexe ñooñu nekkoon ci biir doon jëli seen euh, seen euh, seen vote euh, bu ko defee rek da koy daal di def PV dugal ko ci biir li nga xamante ni moom mooy kayit yi war a bokk tey ci votu 23 janvier bile yaa ngi koy wax kon dafa mel ni Sénégal yëpp ñëpp a génn dañu xalaatoon que taux wala le taux de participation day day faible comme ni mu doon amee si yeneen élection locale yi ndax 2014 bu ñu koy fàttaliku 37 pour cent la ñu amoon mais tey jii nee nañu xale yi seen bopp les primo votants mooy ñi nga xamante ni am nañu dix 18 ans war a ñoom dañoo génn en masse ba tax na euh, relever nañu bu baax le taux de participation euh, sànq bi ñuy wax vers 13 heures 14 heures on était presque à 70 pour cent de taux de participation xëy na heure bi gën euh, gëñ na yéeg lu ci mën a am dinañ ci taataan information yi nga xamante ni foofu la taux pour de participation bi toll muy nag lu am solo guleet boog élection locale nit ñi am ci engouement bu mel nii xëy na nag wax nañ ko euh, ci suba ak léegi euh, réforme yi ñuy indi ba euh, nga mën a tànn sa maire bi nga xamante ni bo moom ngay dugal ci ci sa urne ne man mii kat diw laa tànn bu ëllëgee itam nga ne buñ demee conseil municipal du ci mun dara ndax yooyu yaa fal léegi sa maire directement loolu bokk na ci réforme yi am ci dialogue politique bi keneen ku nekk ci liñ bi walla bokk ñu déglu ay réaction laataa ñuy delluwaat def le tour euh, euh, de nos de nos de surtout candidat yi ak kàngam yi ñu àndal di leen xamal ne Ziguinchor symbole la donc violence. dal na nañ ko dakkal ñoo xam ni bu fekkente ne ñoom lépp lu leen tax a jóg mooy nu ñuy fexee ba askan bi nekk ci jàmm askan bi am koom-koom mun a euh, am dund ndaw ñu mun a am xëy ni nekk ci jàmm nañu bay xel nañu bay xel askan boobu parce que loo wax ne man diw moo ma tax jóg askan moo ma tax a jóg ba pare ngay pousse askan bi ci yeneen façon de violence loolu loolu xel mënu koy nangu rafetlu élection yi nu mu nekk di dérouler en tout cas fii ci commune Ariane fii ci euh, école élémentaire bu sindon fu nga xam ni foofu laa nekk di voté mu doon suma dëkk di ko rafetlu di ñaan yàlla na wéyee nii def nañu campagne boo xam ne macha allah amul rëq-rëq yu bëri donc dañuy ñaan yàlla pour loolu mu mun a wéy bu ngoonee kuy jël ndam yàlla na doon ñun te am nañ si njort bu rafet ci lu ñu gis ci terrain bi incha allah bu ngoonee bu ñu joxeen euh, euh, verdict bi ba ñu xam ku yoon ndam li ñëpp delluwaat ci seen liggéey ñu xam ni commune Adéane moo gagné. donc ci loolu la ñuy woon nit ñi euh, bu ko fee euh, ndam bu ma yaakaar ne yàlla dañu ko jox incha allah na ma mun a permettre ma continuer liggéey boo ma xam ne moom laa tàmbale woon depuis euh, ay at ma koy ma koy ma koy def ci biir dëkk bi donc di ñaan yàlla ñu ñu mun koy wéyal mun koy wéyal ti njëriñu commune Adéane parce que loolu rek moo mun a tax ba commune Adéane développé ndax lu fi nekk ci liggéey dafa jéggi dayoo. waaw commune bi boo gisee ñu woo ma yaakaar la yaakaar la waaw musuma bëgg a def politique parce que journaliste la yàgg di critiquer nu ñu defee politique ci ci ci dëkk bi. 17 novembre dañ teel a wàcc si terrain bi def pré campagne wóor les 82 quartiers de Tivaouane. ba def lu toll ci téeméeri meeting ak ñaar pour wax ak population yi dem ak ñoom si visite de proximité expliquer leen un li ñu jot a def si Tivaouane expliquer leen projet yi ñu am ci Tivaouane ba yaakaar nañ ni population yi adhéré nañ bu baax a baax ñu dem si benn campagne électorale boo xam defe naa ni Tivaouane dégguñu ko ci lu ñaaw mu nekkoon benn appel boo xam defoon nañ ko xamal leen fii dëkku Maam Maodo la rafetul ñu fiy dégg yenn yi loolu yàlla defal na ci sutura ba loolu amul tey ci suba nag xëy na sama gars yi seen xel dafa commencé jaxasoo ñu joxe moo d'ordre comme quoi seen militants yi euh, nax leen wax leen ni maire amul sax droit dem visiter sant de vote yi alors jot naa visiter centre Mouhamadou Mansour Sy dem kër Ndiobo dem kër Ba dem kër Bakar. bi ñu demee kër baaba fekk seen militants yi ñu ni seen gars yi woo nañ leen ni leen maire amul droit ñëw fi ndax campagne électorale bi jeex na ma ne man nag maa mën a sauver situation bi ni may sauver situation bi comme liggéey naa li ma war a liggéey ma ñëw toog sama kër joxe les mots d'ordre ñu dem jëli militants yi ñu dem voté bu ngooñee ñu gagné parce que nag dañu olof day faral di wax ni borom caq du xeex ak borom baati neen te comme ñun ñoom am nañu njàqare ci résultat yi ni muy demee am nañu yéene yàq vote bi duma leen ko may donc actuellement nii on est en train de gérer les choses les gens sont très déterminés sur le terrain avec des dizaines de véhicules mis à leur disposition ñu dem jëli militants yi yóbbu leen ñu vote incha allah bu 18 heures am nañu yàqin bu wér a wér que yàlla àndee incha allah ñun ñooy gagné élection yi fii ci biir Tivaouane. ñu ngi sant yàlla bi ñu mayee ñu fekkee élection moom Euh, yàlla def na def nañ suñ accomplir nañ suñu devoir citoyen dem voté ji école euh, Abdou Aziz Dabakh euh, bureau numéro 5 def nañ ko yàlla dimbali ñu aussi tamit depuis booba léegi ñu ngi tourné di def le tour des des de vote donc bi ñu ñëwee aussi liñ ci constaté mooy am na ay quelques manquements donc mais le reste je pense que tout se passe tout, tout se déroule très bien donc dans l' ensemble li nga xam moom lañ ci constaté comme manquement rek parce que am na ay nit dem ci buntu bureau de vote yor ay xaalis pour jënd nit ñi naan ko andi bulletin Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ma jox la 5000 wala bulletin Diop ma jox la 5000 loolu je pense que euh, Tivaouane soxlawul loolu li ñu liggéey depuis des années liggéey ko depuis des mois donc je pense que loolu rek moom lañu moom moo mooy li nga xam moo war a feeñ tey si résultat tey mais du question ni da taxaw si buntu bureau de vote yi pour xool nit ñi. mais oui parce que ñu ngi koy depuis ce matin donc am na mais du kenn ku dul euh, benn bokk yaakaar donc euh, c' le camp du maire donc ñëw di jënd def ay de conscience moom li mu waroon def depuis huit ans je pense que Tivaouane gis na ko bu Tivaouane doyalee dinañ wan ne ko doyal nañ tey si ngoon mais du question da dem taxaw si buntu bureau de vote yi te taxaw ba léegi ça se passe vraiment bien amul histoire même bu amee quelque histoire sax histoire yu mineur la yu ndaw nit ñi jot nañ ko régler entre famille parce que fii ñëpp famille lañ ndax taalibe yëpp famille lañ waaw kenn ku ci nekk ak sa moromu taalibe famille nga ak moom donc ak famille bi ñu ñu bokk fami El Hadj Malick bokk ñun ñëpp comme ñoo bokk famille El Hadj war ñu mën a réeroo waruñu mën a xuloo lii day jeex rek bu jeexee ba pare dañu àndaat rek donc nañ ko rafetal ñun ñëpp kenn war a fi def dara loo xam ne bu ëllëgee war nañ ko sikkee wala ñu la koy xoolee wala ñu la koy waxtaanee dañu bëgg ñëpp nekk si jàmm jàmm rek la ñuy woote. waaw njort am naa njort bu rafet parce que tamit nit ñi ni ñu tax ni ñu takkoo moo lay won am na loo xam ne que nit ñi seen xol lay jógee xam nga liy liy génn ci xol dafa naqaree téye donc loolu moo tax nga gis nit ñi bu ma yéene ñi topp ma nii di yuux ainsi de suite c'est que bëgg-bëgg la bu ñu amoon seen biir xol yéene woon ma ko yàgg na. te lii lii xewul donc bi mu ñëwee daf ci am ñoo xam ne ñoom dafa leen motiver pour ñu gën a ñëw pour voter donc tey influence bi mu def rek moo la woon ni que yaa am na motivation bu rëy boo ne mu ngi si nit yi. yaakaar ne euh, ndam mën na euh, nga xamante ni moo fi amoon non du incident sax remarque la rek parce que euh, am na ñu yaakaar ne sunu mandataires yi ak sunu plénipotentiaire danañu wax ci situation boobu parce que man li ma jàppoon te loi bi retenir woon ko moom mooy d' abord département bi la ñuy voté après ñu commune bi man bi ma ñëwee dañ ma ne naa voté commune bi ma ne leen de loi bi département bi la wax avant donc euh, léegi ñu ngi xool ak suñu mën a parce que problème bi posé woon na kaa ba ñu signalé ma ko mais apparemment suñu plénipotentiaire demoon na fa dañu delloo mbir yi fi mu waroon xam naa ni bokkul ko yow bëgg nga football tey jii Sénégal war na jane ak dama gëm dama bëgg football te dama gëm équipe Sénégal te maanaam ni muy doxee nii mu mel ne ñuy yox yox yi wala mu mel ne xaw naa yéex day rek tax xale yi gën a taxaw maanaam ñuy gën di yéeg ay escalier waaye tey bu fekkoon ne ku ne dañ laa téye doon la 3-0 xëy dana fekk heure bii ñu naagu waaye ñun bu ñu jaxasoowee ci la ñuy gën a concentré donc am naa yaakaar vraiment ne que coupe bi mën na doon suñu mos. kon ci réaction yi Tivaouane lañ demoon ndax dégg ngeen ñi nga xamante ne ñoom ñooy xëccoo wala di daagaan baatu askan wa foofa euh, waaye nag gis nañ ne bi élection yi di wàcc euh, ba laata campagne bi sax am na euh, ñi nga xamante ni dañoo jógoon ngir rek lépp am si jàmm muy CUDIS centre muy CUDIS sa bokk wala bokk ñeneen ñoo xamante ne daal tànku jàmm lañu bëggoon ki nga xamante ni moom moo cadre unitaire de l'islam euh, moom ñoom euh, ki ko jiitee euh, di Cheikh Ahmed Tidiane si ñi ngi lay nuyu mi ngi nag Tivaouane ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziar. ngi lay nuyu si. Ahmad tiijaan euh, moom mi ngi noonu kon dafa mel ni dégguñu bu baax ñu ngi lay euh, nuyu. ziar euh, di leen jox seen wàccuwaay. maa ngi koy wax léegi ma ne dangeen doon dox boobu ba léegi ci jàmm ak salaam. laataa élection yi ba ci élection yi ñëw na tey jii ba yegsi na euh, su subaak léegi naka ngeen jàngatee li ngeen xam ne xew na fi. waaw donte dégguma leen bu baax waaye ma wax rek euh, di wax ni gannaaw bu ñu euh, jullee ci sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi euh, rafetlu li nga xamante ni am nañ ko ci journée tey bi muy journée boo xamante ni ci respiration démocratique la bokk di élection municipale yi nga xamante ni ak départementale yi nga xamante ni ci suba ba léegi ci la ñu nekk ah comme ni nga ko waxee woon ñun ñu amoon xalaat ni mën na am jafe-jafe mën na ci eh, ñëw ci li nga xamante ni élection la ndax Sénégal du ñu remarqué ni chaque fois bu ñu dëgmale ay élection ay jafe-jafe dina am ah euh, waaye liñ ci doon ragal donte am gis nañ ci ay euh, jafe-jafe tuuti waaye globalement ah mbir mi jaar na yoon muy ci wàllu campagne bi donte am na ay tuuti violence yu ñu remarqué ci yenn gox yi waaye li am solo rek mooy réew mi bañ a euh, loolu gisuñu ko ci campagne bi ci bésu élection bi it donte gis nañu ay yenn rëq-rëq yu ndaw ndawaan loolu problème organisationnel la ay yenn bureau de vote yi nga xam dañuy xaw a yéex a commencé euh, waaye yooyu foog naa lu ñu mën a dabaatal la ah ci wàllu violence bi it gis nañ ni wax dëgg yàlla tey ah bariwul ay jafe-jafe ci bés bi ah ñu yaakaar ni it fii ba ba ñuy jeexal euh, jafe-jafe dootul mën a am. ah ñuy ñaan rek comme niñ ko waxee woon ci njëlbeen ba eh, ñaan ñi nga xamante ne ñoo ko ŋànk muy way politique yi ah, wala bokk électeurs yi dem voté ci jàmm jóge fa ci jàmm ah, dellu seen i kër xaar résultat yi ah ñi nga xamante ni ñoo war a proclamer it ah, def seen liggéey ci anam ba mu gën a rafete bu ko defee Sénégal mën a xëy suba comme ni ñu ko daan defee ci élection yi fi weesu nit ñi mën a liggéey ndax loolu mooy démocratie loolu mooy maturité peuple boo xamante ni euh, mat na sëkk liñ koy doyee muy tànn ay njiitam ci anam bu mu gën a rafete a ah, waaye politique yi tamit nangu ñi nga xamante ni yàlla def amuñu ndam ñu nangu ko ñi nga xamante yàlla def ne ñu am ndam ñu félicité leen ah jox leen réew mi ñu mun koo yor ci aussi ci anam gën a rafete kon loolu mooy tey suñu euh, suñu suñu suñu kàddu tey di rafetlu fii ba ci subaak léegi li nga xamante ni gis nañ ko fii ci Tivaouane ah di aussi dëkk bu sell nga xam ñoo ko ŋànk di ay politique ci suba ba léegi di rafetal diggante yi kon nag a ah, ñu ngi koy ñu ngi leen di sant si seen taxawaay boobu ah di ñaan it bu bu ñu proclamer résultat yi lii ñu am tey mu nekk loo si luy mën di wéy ba nga xamante ni benn contestation du am ah nit ñi mën a delluwaat si seen jàmm loolu daal moo doon ci sama kàddu ci ci li nga xamante ne am na di ñaan yàlla wàcce jàmm ci réew mi yàlla gën a dëgëral ànd yàlla gën a barkeel réew mi ba li ñu ci nam yëpp eh, ci wàllu koom ñu ci nam yëpp ci wàllu nekkin bu rafet yàlla matale Cheikh euh, Tidiane Sy euh, kàddu yi euh, rafet na ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ndax nag bu li amee dal xëy na bokk ngeen ci ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko sooke ndax boobu ba léegi toogu leen taxawu leen lu dul rek langue politique yi am jàmm tey ji itam yaa ngi koy wax élection yi wane na la maturité démocratique peuple bi itam wane nañu seen responsabilité te itam wane waat nañ ne le dernier mot lui revient ndax nag xëy nañu ci suba si euh, dem euh, voté ji euh, delluwaat ci seen i kër li ci des daanaka barewul kon boog bu ñu xoolee ne le peuple vraiment dañ ko war moo nekk o cœur o début et à la fin vraiment de de tout malgré que coow li bari na lépp bari na waaye gis nañ ne daal voté nañu ci jàmm quelque quoi am na du ci ñàkk lu ci mën a am mooy ne ñi ngi rafetlu bu baax askan bi yëpp a ngi rafetlu jàmm gi nga xamante ni boobu ba léegi yéen ko doon dox euh, avant les élections avant la campagne électorale et tout te gis nañu résultat bu mu jur di leen gërëm bu baax euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy euh, jiite CUDIS le le centre le cadre unitaire de l'islam yi ngeen xamante ni boobu ba léegi yéen a ngi wër les acteurs politiques ñuy signe seen charte de non violence bu ñu ca jógee xëj na dañuy dem dégluwaat kenn ci suñu ay correspondant jaraaf Youssou Ndoye kon moom lañuy dégluwaat euh, léegi. les acteurs seen charte. Hmm. ci suñu ay correspondant jaraaf yu Youssou Ndoye kon moom la ñuy dégluwaat euh, léegi. mu mel ni jaraaf Youssou Ndoye euh, wax na euh, génn gannaaw bu mu voté ba pare euh, waaye mu mel ni dégguñu ko bu baax kon bu xëñ na si kanam tuuti dinañ gën a réajusté jaraaf Youssou Youssou Ndoye fii ci Yoff kon la la la xëj na moom itamit kàddu yu mu war a yëkkati dina am solo ndax nag boobu léegi moom itam ñi ngi koy dégg mu yëkkati ay kàddu yu responsable lu ci mën a am ci kanam tuuti dinañ fexewaat baaxee leen ay kàddoom keneen ko koo xamante ne mi ngi ci ligne bi euh, ñu déglu ko laata ñuy dem euh, amaguñu euh, kon boog ñuy de façon on est presque à quelques minutes de la fermeture des bureaux de vote et même des centres de vote aussi ndax nag heure bi code électoral bi wax moom mooy huit heures dix-huit heures waaye itam bu fekkente ne tey gis ngeen ne les gens sont sortis massivement euh, voté ji euh, sànq bi ñu jokkoo ak euh, Jo Maron ca fële Parcelles Assainies nee na centre ba daal daanaka dafa mel ni ñu ngi soog a sax door a voté te subaak léegi nit ñaa ngi ñëw di di voté kan la déglu ñu dem. Euh, dañuy dem nag euh, Louga kon xool fan la ñu toll ñoom ci vote bi Thierno Fall maa ngi lay nuyu. Diallo maa ngi lay fay. ana fu ngeen tollu foofu ca Louga. waaw ñun ci euh, centre vote nekk ci ñu gën koo xam ci Njang Ba bi li ñu seetlu mooy daal daanaka rush bi demewul noonu dafa yeex ba nga xamee ni. Euh, bureau de vote bu nga xamee ni par exemple quatre cent soixante quatre euh, électeurs ñoo fay nekk daanaka boo ci jaar actuellement li ñu ñoo ci àgg ci ci moyenne bi maanaam ay cent nangam la ñuy am quelques bureaux rek ñoo ci amagul ay deux cent yu nekk donc muy wane ni vote bi dafa yeex loolu aussi moom la ñuy nemmeeku ci centre euh, bi nga xam ne moo nekk fële ci artère yi nord foofa tamit ci bureau boo jël nga xamee ni cinq cent et quelque la da ngay gis ni ay cent et quelques lu ñëw ñoo ci eggagul deux cent pour kenn ku ci egg deux cent cinquante donc day wane lool day wone ni taux de participation bi boo moytuwul dina xaw a wàññeeku tuuti su fekkente ni prolongé wuñu mbir yi dina wàññeeku loolu aussi moom la ñu seetlu ci manaaru ku daa dañuy dem benn instant boo xam ne ni kenn doot fa nekk ñu jékki-jékki ñun ñëpp ñëwandoo donc ñu seetlu ñu wat bi yeex na lool waaye bi ci nga xam ne moom lañ nekk mooy njàng ñi nga xam ne moom lañ ci gën a déploré mooy ay doomu aadama yu nga xamee ni ci ay électeurs yu nga xamee ni ci dañ leen a fàtte ci liste bi nga xamee ni moom la ñuy présenté ci bureau de vote bi tey boo ko ci centre bi yëpp nga xam ni cinq mille et quelques inscrits ñoo fi nekk ci li ma ci rek man personnellement war nañu toll ci ay deux cent personnes yu nga xamee ni ci ay omission la ay nit yu nga xamee ni ci par exemple dañuy war a voté bureau de vote numéro deux nga ñëw présenté sa carte lépp nekk ci mais bu ñu xoolee ci liste bi ñu bi ñuy bi euh, président bureau de vote bi yore surtout du fa nekk loolu nag muy lu nga xamee ni ci euh, vraiment population yi euh, déploré nañ ko ñaawlu nañ ko muy lu nga xamee ni Euh, tere nañ ñu bëri fi mu toll ñu accomplir euh, li nga xamee ni ci mooy seen bor euh, lool ñu nemmeeku ci nga xamee ni nag mooy candidat wu Yewwi Askan Wi sax moo fi jóge léegi bokk na ci li nga xamee ni moom la gën a dénoncé ci ci diwaanu Ndiol Ndamboy même Aminata Mbengue Ndiaye nga xamee ni moo bokk parti socialiste jot na cee wax ak préfet bi ba nga xamee ni jotoon naa tàng seen diggante ñoom ñaar ndax moom bureau de euh, vote euh, bureau numéro huit la doon voté mais dañ ko déplacé yóbbu ko bureau euh, numéro un muy nekk lu nga xamee ni ci balaa mu doon retrouver bureau de vote am sonnoon na lool donc mais jafe-jafe bi mooy lu nga xamee ni ci kaw la bàyyeeku ko au local loolu mooy instant yi nga xamee ni daal ne nekku nañ ko fi ci Ndiack Bambo ci centre de vote bu gën a mag ci Louga nga xam ni centre la donc loolu doy na fi waar lool lool lool xam naa ni Euh, bu ñu xaymaa lépp dina ëpp ay ñetti téeméeri doomu aadama yu nga euh, euh, nekk foofu ca Louga Louga nag enjeu la pour boo ko Yaakaar ndax nag le maire sortant di Moustapha Diop xam ngeen ne ki nga xamante ne mooy Mamour jàlloo jàppalewu ko nanguwul topp ci ginnaawam ba dafa créer sa propre liste une liste parallèle daal di dem moom itam ci élection yi Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xamante nekkoon na maire Louga. di président HCCT bokk dite parti socialiste gis nañ ne moom Mamour jàlloo la dem tàllal loxo euh, fan yii dañu génn lu ci mën a am ci kanam tuuti dinañ xam fan la wàllent di mujjee ci gëtëm yaa ngi koy wax sànq vote bi dafa xaw a yéex un peu partout ndax nag dafa particulier vote bi ren ji tey jii euh, ndax nag dañuy vote ñaari yoon wala nga vote ñetti yoon te ñu ci bari duñu comprendre comment on voté ñu ngi doon wax sànq autorité bi am na ci responsabilité bu mag a mag loolu moo tax nag xëj na sax nag euh, ñu bari euh, dinañ sax euh, bañ a dem wala bokk ñu voté naka sudul noonu bu fekkee kenn kenn kenn jàppalewu leen dañuy dem déglu ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Mati Dieng mi ngi Podor maa ngi lay nuyu Ndeye Mati Euh, Binta ñoo ngi lay fay ñoo ngi fii ci Podor ci école amaat Ba fii nag fii la ki nga xamante ne moom mooy euh, maître Moussa Diop bu yeewi askan bi voté moom ñëw na sànq ay booru 11h daal di voté mais am na mbir yoo xamante ne tamit ñaawlu na ko mu ngi mel ni nee na ci seen liste yi dañ ci gis ñoo xamante ne ay euh, ñoo xamante ne waa Rosso lañ te loolu noonu du yoon bu ñu demee nag école ma Racine foofu la voté ay booru midi la fa ñëw voté daal di voté si jàmm woo nit ñi tamit ci jàmm xamal ne képp koo xamante ne. Euh, na nga fêté sa victoire ci jàmm ba ki nga xamante ne moom mooy beneen candidat bu booloo liggéey euh, booloo liggéeyal Sénégal muy Sayer Niang moom tamit sànq ci suba dafa ñëwoon pour voter daal di mujj dellu parce que turam moo nekk woon ci benn list ci quatre classes yi nga xamante ne moo nekk fii ci école Amat Ba mook euh, Moussa Diop ñoo bokkoon fi ñoo waroon bokk fi ñu voter mais après bi mu demee mu demee fee di préfecture waxtaan ak préfet ci la ñu gis mu daal di ñëw voté ci jàmm mën nañ ne ci département Podor bi yëpp vote bi moo ngi jaar yoon à part bi nga xam ne gëm naa ni heure bi dina jot ñu daal di tëj te duñu voté ndax li fa nekk mu te vote bi vote bi dafa xaw a yéex foofu euh, euh, toogal kon euh, groupe Futur Média foofu ca Podor dañuy dégluwaat ki nga xamante ne moom mooy jaraaf Youssou Ndoye fii ci Yoff gannaaw bu mu ba pare. ñu xam ne bët bu set dañ naan def naa ne sax lool la ñu jàngaloon à le soleil se lève à l'est et fan à l'ouest boo xëyee da ngay calculer bés bi pour bañ a def lu ñaaw nga ne bés bu jot na jot na mais fi mu ne nii bu ngoonee ñu ngi koy seet si fii si booru géej am deet noonu ngay doxale noonu loolooy àdduna nga ne nag tey du ma tooñ kenn tey gii ñëpp war a daje bëgguma dem si benn mbooloo war a ne fa wane fa ak yaradaku parce que soo fu ak yaradaku xam nga kan la ñuy critiquer say parents diw day yarul doomam doomam def nangam doomam saag diw doomam xeexax diw warul xam nga tey lu baax sangu set te ndox am na daa di defar say yi ngay def comme jigéen daa di puudaru puudaru bees bi nu mu tudd may këpp voilà <laughs> yow yooyu la quoi xam nga man loolu moo tax yéen xale yi mënuma tàggoo yéen mais nag booy yi ñu sol seen i giina seen i yooyu bàyyi xeex dañuy naan xeex à terre nu nu dem doxi soxla yi mais toppa di xeexoo di ngiroo xa boo seetee kii gañi bu gañi après day nelaw yi seetlu nga loolu xam nga ne kenn mënu fa nelaw ba pare toog du xulli président de la république ba mu gañee réew mi bii mi une heure jotee deux heures dafa dem tëddi parce que suba encore dañ koy féliciter ñiiñ gañe nañu félicité ak ñii nga xamante ne ñoo gañe te ñu jàpp si yàlla xaar exemple yi ñu si mën a bari réew mi pour ñu dëkk fi dañuy jàpp ne suñuy maam dañ waxoon ne bu kenn boddokoon te kenn jaraaf Omar Gueye Samb mu baax mi dina koy faral di wax réunion comme quoi que ne nun Sénégal nun Wakaam suñuy maam wax na ne bu kenn boddokoon te kenn ku fi dëkk ah, ku fi ñëw ñoo yem wakaam wakaamu ñëpp la na ñëpp ànd ñëpp bokk ndey bokk bàyyi dinaa koy faral di wax encore que Sénégal xam nga lu fi gars yi doon wax bi ñu amee indépendance dégg naa gars yi way ko fi mais sax danañ ko way si yi ñu doon organiser fii si dëkk yéen waa Sénégal nanu bokk ndey bokk bu nu bokkee ndey bokk ñu bay suuña bay saaña way woon neex la woon daanaka way bi may nekk caroleur xam nga boo seetee daw de nakkatu daw de ma nga ñaaw su ko ko mas gis ma xeex maa fi gën gis suma ah mu xee dan ko tooñ kooku laaj sax atte xam nga lu ñu dañuy taxaw rek ñu ne yaa tooñ Youssou dégg nga nga gis TFM suba ba ngoon jàmm lañ fay wax jàmm mag ñi xam nga nuñ ko tuddee dañ wax ne lu dul jàmm jàmmaa ko gën est-ce que dégg nga wax bi lu dul jàmm jàmmaa ko gën war nañ lay jàmm ngeen dégg sax ñu naan bakkeen jàmm la bëgg ak ndoxam suba cest à da nga bëgg a yeewu si jàmm jël euh, pot bi def si ndox sëlmu booy sëlmu bakkeen bi dana tooy jàmm moo ëpp doole Sénégal nañ ut jàmm encore samay xarit samay soppe samay mbokk yor nekk ci télé yi di ay sénégalais nu ngi leen di gërëm parce que lii ngeen liggéey bëgg si tollu fii am ngeen jaaraama ngoon bu doon si bëlëfu dañuy wax ko jaaraama man la docteur Massa jàmm ko gën ndax nag bu jàmm amul woon yaakaar naa ne tey du ñu yegg si ci bés bi Cheikh Anta Diop benn dëkk ñaari gaar maa ngi lay nuyu Cheikh. waaw fay baax a baax alors fu ngeen toll. waaw euh, jamono yi nag euh, ñu ngi fii ci école bu ñuy wax école maam El Hadj Ndiégène fii neuf bureau de vote moo fi am waaye nag liñ fi gis ci ay nit dafa doy waar lool yaakaar nañ ne daal fii ak 18 heures ñi taxaw ci bunt bi kenn du ci mën a wote. Euh, ñoom sax ñu ci bëri ñu ngi ñaan prolongation parce que dugg nañ ci biir mais gis nañ ne wax dëgg fa yàlla bon organisation parfait non parce que parti bu ci nekk coalition bu ci nekk am nga say représentant ba ñu ko organisé ku ci nekk boo ñëwee may jël ñaar wala ñett tànn mais dañuy euh, soxla euh, maanaam euh, bu dee ville xam nga quatorze liste la quatorze yëpp ngay jël wala quinze yëpp nga dem dugg ci isoloir isoloir bi jël carte bu leen ne nga dugal boo voté ba pare dem voté département parce que fii da ngay voté ñaari yoon ngay voté da ngay voté commune ñetti yoon da ngay voté commune voté département ak ville aussi kon mu nekk loo xamante ne aussi c'est bien organisé ici au niveau de la commune de Thiès Nord waaye liñ ci nemmeeku léegi rek benn mbir mu xawoon am doy waar ci diggante euh, partisan Talla Sylla yi ak ay partisan Ablaye Dièye euh, fële nga xamante ne moom mooy Cheikh Ablaye Yakhine foofu nag Talla Sylla bi mu voté dafa génnoon doon def benn déclaration ay nitu Ablaye Dièye nag ñëwoon daal euh, doon wax daal ba ñu jàppante fa mu nekk loo xamante ne daal même Talla Sylla rafetlu ko parce que nee na leader bi nga xamante mooy Ablaye Dièye moom xaritam la nitam la ah, kon nag bu ay xale ñëwee di sànni di yuuxu ah, kon loolu diglewu ko kenn moom daal wax nañ ne ñëpp delluwaat ci jàmm ñu voté vote yi jeex 18 heures ba ku ci nekk euh, la yàlla may nga nga nga nga jël ko boo gañee nga xam ne gañe boo ñàkkee nga xam nga ñàkk nga loolu daal moom la ñu gisagul gis nañu nag école Modou Kane aussi foofu mooy école bi nga xamante ne moom moo fi ëpp ay bureau de vote parce que fukki bureau de vote ak juróom-ñett la jamono yi nag foofu aussi mu ngi fees dell ndaxte nit ñi aussi euh, maanaam vote bi dafa xaw a yéex ndaxte boo gisee par exemple lu toll ci fukki liste ak euh, juróom ku ci nekk nga bëgg a jël xobam dugg ci isoloir bi wote commune ñaari commune wote département ñetti vote ci biir Thiès dafay xaw a doy waar ba tax na daal euh, xañ na ñoom kilifa yi dinañ ci adduwaar xool ndax lii dañ koy prolong def prolongation maanaam dem ba ci kalam wala déet mais daal yaakaar nañ ni fii ak 18 heures ñi nekk fii ci école Kër Maam El Hadj ñëpp duñu mën a wote jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Anta euh, yow lu ñëpp wax rek nga wax euh, ndax vote bi yéex na lool ndax li ko waral ñaari yoon ngay voté wala ñetti yoon Thiès ak Rufisque xam nañ ko ñetti yoon ngay voté ndax di nga voté commune ville ak département gis nañ ñett aussi les bulletin dafa bari te ne yaa ngi wax ni dañu lay exiger nga jël 14 bulletins yëpp dem voté ñëwaat jëlaat loolu du lu yomb kon autorités yi rek ñoom la ñuy déglu du ci mën a am mooy 18 di li des mu yemb daanaka bareetul. Euh, bu ñu amee euh, beneen euh, reporter bu nekk en ligne Vieux Diouf ñu jël ko ñu déglu kon ay réaction avant ñuy jëlaat nos reporters. li ma ci wax rek mooy fii école Cheikh la ma voté fii bureau numéro 2 gisuma fi benn rëq-rëq gisuma fi lenn lu nga xam ne lu anormal la. coow li nag li ko mën a indi mooy ñoo xam ne dañoo décider jalgati yoon. mooy ñoo xam ne yoon yoon dafa bu leen def achat de conscience bu leen dugg ci biir centre de vote yi di def ay campagne électorale ñooñu buñ ko naree def les autres coalitions mën nañoo riposter wax ne li ngeen def ñu nekkul yoon loolu mën na indi ay jafe-jafe ci centre de vote yi. donc c'est une agression qu'il faut dénoncer qu'il faut regretter le problème c'est que ils de déclarer que euh, il suite parce que sont dans les autres et judiciaires ñu def itam kenn ci wax dara. Hmm? dañuy porter plainte. ci suba teel bi signalé nañ ma wax nañ ma sama kër ne ma am na ay irrégularité et foofu sax lay vraiment rendre hommage euh, les force de sécurité parce que principalement am na benn école benn centre de vote loolu dafa am autour ci ci ci alentour yi bi ñu ko signalé force de l'ordre yi di ko régler ko disperser ñoom. am satisfaction. parce que ci suba ba tey euh, xañ na fii lañ ñëwagul dinañ def yeneen centre de vote yi mais euh, jàmm am na et je pense que loolu moo war a am parce que dañu jàpp ne ñu nekk ay candidats yëpp leen tax a jóg mooy jàpp ci seen dëkk pour mu jëm kanam te bu fekkente ne ñun ñëpp loolu moo ñu motiver jarul xeex jarul xuloo waaw mais di ko def si jàmm rek xam ne ndam du dem ndam du dikk Bambey rek lay des. ki gagné doomu Bambey lay nekk incha allah donc Bambey rek moo ciy gagné nañ ko def ci jàmm jeexal ko ci jàmm après aussi ñu àndaat ci jàmm yi. soo xam ne Bambey dafa am jeunesse c'est la jeunesse de Bambey qui s'est réveillée c'est la jeunesse de Bambey qui s'est réveillée et ñoom ñooy def seen choix kenn defloo leen ko maintenant ñun c'est vrai moi mon souhait le plus ultime mooy nekk. la liste de mbokk Bokuyakar puisse remporter le département et l'ensemble des communes. Ce sera le cas, monsieur. de, de, de l'ensemble des 12 communes. C'est ce que nous souhaitons. loolu am mu ñàkk am damay ñaan ñëpp nañ dem ci ngor nañ dem ci sérénité nañ dem ci calme parce que ay élection la rek dem man wax naa ba tey politique bu kenn nungu mu tàggale la ak say mbokk. dañu signaler ne. am na un très grand responsable de benn Bokk Yaakaar boo xam ne dafa jël ay carte d'identité ay primo votant indi leen def ay transfert d'électeurs suñu directeur de campagne ñu mu ngi xool ak préfet euh, loolu nan la ñu koy euh, sanctionner parce que quand même li xew si campagne électorale bi boobu ba léegi si jàmm lañ ko def Fatickois yi ñoo demande changement ndax li xew Fatick dootuñu si dellu si dix ans à la tête d'une municipalité un bilan négatif il faut changer d'équipe euh, coalition And Nawlé la meilleure coalition xamante ne moo nekk fii et que Fatickais si moom lañ yaakaar changement mais aussi l'occasion ma lancer benn appel aux autres coalitions yi nga xamante ne xam nañ ne amuñ benn chance de gagner les élections pour un vote utile loolu rek moo mun a tax changement bi ñu bëgg ñu mun ko def si jàmm ak salaam di saluer aussi le discours républicain du président de la République parce que quand même c'est un discours euh, de très haute facture. voté nañ ci jàmm ak salaam alhamdulilah fii ci saam nag gisuñu fi incident majeur ñaa ngi ñëw di voté ci jàmm ak salaam. alhamdulilah ñu ngi ñaan xam naa ne fii ba ngoon gëm naa nii lay mel gis naa population bi ñoo ngi génn di voté waaye ñoo ngi ñaan ñu gën a génn surtout yéen sama mbokk ndaw yi maa ngi leen wax ne tey jii nii euh, dañuy yeesal ñi nga xam ne na ñoo doon jiite collectivité locale yi te loolu am solo la lu am solo la ci euh, démocratie Sénégal lu am solo la kon yéen ndaw yi maa ngi leen ñaan yéen ñëpp képp ku ci génn gul na nga dem génn voté 18 heures 50 wala 17 heures 52 minutes euh, li des 18 heures jot euh, daanaka barewul am na nag euh, ay bureau de vote wala centre de vote yoo xamante ni tàmbali nañu ca njolbeen ga di 8 heures ci suba daanaka kon li leen dese ñu tëj seen i bureau mën a nag commencé dépouiller daal di afficher bu ko defee les premières tendances journalistes yi ñoo koy joxe comme ni ñu ko faral di defee première tendance yi nga xam ne ñoom ñoo génn ci urne yi yenn dina am yenn centre de vote yoo xamante ni euh, dinañ ci dinañ ko tàmbali euh, bu 18h jotee ñu tëj ko bu ko defee nag ñu tàmbalee dépouiller ñu ci bëri sax des fois dañuy euh, woo journalistes yi ci biir ñu bokkandoo comptendoo li nga xamante ni ñoom ñooy xob yi lu ci mën a am ci kanam tuuti lay doon après 18h Abdoulaye Cissé teew na ci kanam tuuti dinaa ko bàyyeek antenne bi ak Sara Cissé ak i tamit ki nga xamante ni mooy Souleymane Niang laata loolu nag ñu dem. dem jëli euh, jabaxate ca Kédougou Ibrahima maa ngi lay nuyu Ibrahima Ibrahima jabaxate maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Binta Diallo euh, fu ngeen toll Kédougou ah euh, affaire bi mu ngi continuer rek vote bi ñu ngi si kawama ñu ngi continuer ba dix xam na xam nga ne fii fi ma nekk nii maa ngi ci école élémentaire Bakar Danson fi nga xam ne nemmee ko nañu fi benn retard bi ñu doon euh, tàmbale vote yi xam naa ne moom dañoo xaar ba dix ju xool ba léegi nag ñi ñaa ngi ñëw bureau numéro un bi ñi ñi bëri nañu foofu fu mu nekk nii euh, instant bi xam naa ne moom euh, mun na am mun na am ñu ñu continuer ñu proroger vote bi yeneen ñaari yi moom fu mu nekk nii gisaguñu fi dara mais am na benn bureau de vote bi nga xam ne moom yaakaar naa ne moom dina dina teel a joxe résultat am mooy bureau de vote bu nekk fële Teppere Jantu bureau boobu Binta daal euh, vingt deux électeurs inscrits te depuis euh, dix heures ci suba set yi ñëw woote ba léegi kenn kenn kenn votegul nee na ma daal moom dina joxe résultat yi boori dix huit heures trente naa ko woo pour ñu jéem a xam fii maa ngi fi ak euh, benn responsable benn bokk yaakaar Seydou Sall na def. maa ngi sant yàlla baax a baax. noo gisee vote bi alhamdulilah rabbil alamin élection bi vraiment jaar na yoon euh, en plus euh, ñëpp ñëw nañ vraiment ñu ngi sant bu baax te sécurité bi doy na. Uh-huh. waaw macha allah. par rapport ak taux de participation est-ce que kontaan nga ci. waaw sant yàlla dal na xel. Uh-huh. Euh, population yi génn nañ. génn nga génn nañ baax a baax sant yàlla. Uh-huh. en tout cas ñu ngi xaar fii dix huit heures di ñëw pour résultat yi gën a bokk yaakaar remporter les élections incha allah. waa Binta. Euh, Ibrahima Jabaxate waaw euh, noppi nga. allo ma waaw. bon fii nag euh, xam nga Kédougou région de Kédougou. Mhm. population électorale moom bëriwul noonu quoi. parce que mhm. boo boo réuniree l' ensemble des trois départements. électeurs yi yëpp mënuñu àgguñu sax soixante sept mille électeurs inscrits bon. Eh, bu ñu ko tasee ci ñetti département yi département bu Kédougou bi mu ngi am presque trente cinq mille et quelques électeurs yi moom bëriwuñu te aussi euh, taux de participation bi bi ñu euh, bi ñu la bi ñu laajtee président bureau de vote fu mu nekk nii mu ngi tourner autour de trente huit pour cent trente six trente trente huit pour cent mooy que ne vraiment ñun ñi daal euh, génn guñu euh, ñëwuñu euh, habituellement quoi feesaguñu feesaguñu ñi doon ñëw ndànk lañ doon bon bariwul bariwul noonu daal. kon ñu gërëm la Ibrahima Diabakhate nee na nit ñu bari euh, ñëw ñu euh, voté taux de participation bi euh, mi ngi tourné autour de 38 pour cent ci kanam tuuti kon xam naa ne si bu bureau yu tëjee dinañ ñëwaat ci yow pour les premiers résultats wala les premières tendances dañuy dem nag laataa ñuy jox ñeneen ñi ñëw toog fii ci plateau bi Ibou mi nga ca Médina Ibou Kane ñu ngi lay nuyu. Ibou mu mel ni Ibou Kane euh, ñëwagul euh, kon boog euh, Ibou Diouf Vieux Diouf ma tàggatoo rek wala ma xaar Ibou ah Ibou Kane dem na kon boog daanaka du ñuy mayoon ci waxtu ñetti waxtu rek ñetti simili moo ci des 3 minutes moo des ci 18 heures dañu koy daal di yemale fii bu ko defee ci kanam tuuti rek donc quelques minutes Ibrahima Kane laataa may jeexal ma jël Ibrahima kan maa ngi lay. Ibrahima Kane maa ngi lay nuyu. mu mel ni euh, Ibrahima Kane on l'a encore perdu mi ngi ci mi ngi ci téléphone bi euh, ñu xaar tuuti Ibrahima Kane ñu dem ñu delluwaat médina ba xam euh, fan lañu mujjee ñoom i tamit ci élection yi ndax nag foofu tamit ndax am na ay jafe-jafe wala ñoom ñi ngi waaj a tëj seeni bunt bu ko defee nag ñu xam nag fan la wànnent mujjee ki gëtëm. ndax nag yaakaar naa ne léegi nag moom di ci des rek mooy dëgg gi nga xam ne moo war a génn ci urne yi te yaakaar nañ ne nag euh, bu bu ci génnee ku ci nekk rek euh, di nga respecter euh, vraiment li génn ci urne yi ndax yaakaar nañ loolu mooy démocratie gannaaw coow li ak yëpp Ibou Kane Ibou way Binta maa ngi lay nuyu Kane ça maa ngi lay fay Binta alors yaa ngi Medina lu fa xew maa ngi Medina waaw fi mu toll nii ñu ngi ci centre Alassane Ndiaye Alou waaye euh, gis nga ko ay simili yu ndaw moo des dix huit heures jot heure bi nga xam ne moom la ñu war a tëj bureau de vote yi wante ba léegi affluence bi mu ngi fi ba léegi affluence bi mu ngi fi nit ñi ñu ngi ñëw ba léegi euh, boo xoolee bon malheureusement image yi dafa dem euh, est-ce que du ngeen ma jëlaat tuuti binta comme ça ma mën leen jox image yi ngeen koy amaale. Ibou Kane nañ ko jëlaat comme ça euh, mu mayaale ñu image yi ñu mën a xam euh, lan moo fa xew euh, en ce moment précis ñu xam lan moo xew ca Médina xëy na dafa am ay image yu am yu baax yu am solo yoo xamante ni Ibou bëgg nañu ko wala baaxee ko les téléspectateurs ñu Ibou Kane mu ngi ci ligne bi wala mel ni Ibou nekkul ci ligne bi. Euh, kon euh, bokk euh, ñu daal di xanaa rek nu may def Ibou Diouf ma tàggatoo wala. dañuy jël Ibou kon euh, vidéo euh, ci kanam tuuti euh, mu def mu wax ñu ana lan moo xew ca Médina bi nga xamante ni Bamba Fall moom Médina au cœur la demee ak itam Cheikh Ba di candidat Benno Bokk Yaakaar ana fan la vote bi toll est-ce que ñi ngi continuer du voter ndax nit ñi génn nañu bu baax ñëw ci centre de vote yi foofu ca Médina ndax nag partout dans le Sénégal ñi ngi wax ne les primo-votants surtout surtout ñoom ñoo assiégé les centres de vote ba tax na ñi euh, voté ñi gul ñoo ëpp euh, waaye ba léegi dégg dégguñu autorité bi nag si ndax dañuy yokkaat am déet euh, lu ci mën a am daal nit ñaa ngi rang ku ci nekkee ngi xaar sa tour ngir dugg euh, mën a voter am na nag li ci mel ni Kédougou Ibrahima Diakhaté wax na ko léegi foofu moom dafa ni euh, daanaka euh, taux de participation bi demeewul noonu lu ci mën a am Ibou image bi Ibou Kane kon ca ca Médine ca Médine ca Médine ca Médine baax ñi ngi xaar seen tour ñu dugg voter Ibou Kane ci ci ci bi Ibou. Ibou Kane mi ngi won image yi Ibou may dégg. Binta maa ngi lay dégg léegi waaw. lay déglu metti naa lu fa xew. je sais pas yow yaa ngi may dégg yow itam. ñu lay dégg bu baax. Binta Diallo Binta Diallo. ñu lay dégg Ibou. Ibou yaa ñu dégg. maa ngi lay dégg Binta waa comme gis nga ni nga koy gisee nii ci image yaa ngi xool ci ginnaaw euh, lii yëpp ay électeurs la yoo xamante ne ñu ngi ci buntu bureau de vote yi continuer ci seen ngir war a mën a voter yaa ngi koy wax léegi ndax autorité dina yokkaat heure bi am déet loolu moom euh, amaguñ ci information waaye fii ñu toll instant yi mën nañu jàpp ne dix-huit heures daanaka jot na ba pare wante ba léegi gis nga ni koy gisee euh, nit ñaa ngi ci biir ñu ngi ñëw ngir voter fii nii nga xamante ne moom mooy centre Alassane Ndiaye Alou naka noonu ci yeneen euh, école yi itam muy Mour Diop wala Mamour Diakhaté foofu itam électeurs yaa ngi fa fees dal ba léegi euh, ñi voté gul bëri nañu li ko waral nag xam naa ne taux de participation bi amaana dina baax boo xoolee nag élection locale dafay nekk élection boo xamante ne proximité la. maanaam ci la nit ñi di gën a génn ak tamit li koy gën a yéexal déroulement vote bi ndaxte am na ñoo xamante ne dañuy voté da nit ñi ñaar yoon la ñuy voté fii nii lu ci mel ne Dakar loolu nag day gën a xaw a yéexal opération yi comme ni ngeen di gisee ni ma la wone li am fii nii ci Alassane Ndiaye Alou daanaka centre yi ñu visité yëpp si Médina heure bi boo ci dem rek nit ñaa ngi fa fees del ngir accomplir seen devoir civique Binta Diallo très bien Ibou Kane ñu ngi lay gërëm bu baax yaa ngi ko wax kon euh, nit ñaa ngi rang ba léegi ñu ngi koy gis nii si image yi euh, ci centre de vote yi nga xamante ni ñi ngi foofu ci Médina Alassane Ndiaye Alou ak yeneen yi nga xamante ni tudd nga ko lu ci mën a am yaa nga fa euh, di nga ko baaxee les téléspectateurs de la télévision Futur Média ci kanam tuuti dafa may ni 18h jot na maa ngi leen di gërëm boobu ba léegi yéen a ngi ànd ak télévision Futur Média ci kanam tuuti Sara Cissé Souleymane Niang ak Abdoulaye jërë ngeen jëf